paw jan moo ngay jat di dugal ya. di génne hey bin jol waaw waaw waaw waaw waaw waaw gudeg sol baa ngi noonu Oufess Cassava Oufess mu ngay wër géew dafa tantu bopp ba laal te dem boo ko gisee xam ne liggéey na lii lañ bëgg si mbër ku gis xam ne yaa ngi ci mu macha allah waaw waaw yaakaaru Joal Fadiouth kenn ci yaakaar espoir la. rajaxe ngi nii dafa daw maa ko wax rajaxe dafa daw rajaxe ngi nii <laughs>